11 août 2021 mbokki bisimila dal leen ak jàmm seen revue d'actualité ñu dooree ak basketball ak tournoi international de Dakar bi ñu amalee sa jëm ñaajoo jàpp leen ne suñu équipe nationale locale bi ak équipe nationale A dañoo daal di gagné seen premier match ñu desandi ci basketball daal di waxtaanee Boniface Ndong mi nga xam ne nii dikk na ci effectifam bi mu am yaakaar daal di koy yóbbu Afrobasket ca Rwanda ñu jàll ci football waxtaanee Ismaïla mi nga xam ne nii Watford fas yéene wu ko bàyyi mu dem ci actualité nees gis ñu daal di leen koy faram ci tournoi international bu Dakar bi ñu amale ci jëm ñaajo pour wàccaayu Afrobasket 2021 buñ nar a amal ca Kigali jàpp leen ni équipe nationale locale nga xam ne ni Cheikh Sarr moo nekk seen entraîneur score bi 86 à 74 la daal di jeexee jàpp leen ni équipe nationale locale boobu leen ñu ngi ci ràññee joueur yu nekk AS Douane DUC bu Dakar ak waa gendarme sélection nationale A bi nga xam ne nii moom moo na représenté Sénégal ci Afrobasket yooyu lee jàpp leen ne moom itam dafa daal di gagné premier match am démb la woon contre Guinée ndaw Boniface Ndong yooyee daal di wane jom ak fulla daal di gagné Guinée ci 85 à 65. jàppale ne tournoi boobee dina daal di wéy tey ci bëccëg gi équipe nationale locale dina daal di jouer ak équipe première bi tey lay doon bu 18 jotee. beneen jongante bi dina dox ci diggante Guinée ak Rwanda. ñu desandi ci basketball daal di waxtaanee Boniface Ndong mi nga xam ne ni daal na jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ginnaaw ba équipe bi daal di gagné premier match bi tournoi international bu Dakar. entraîneur bu équipe nationale bu Sénégal boobule daal di na xamal ni. Tacko Fall ak Pierre Henry ñoo ñëwagul ci boobu regroupement. bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom Pierre Henry bi nga xam ne ni problème familial moo ko téye ba léegi nii dina ñëw mercredi wala sax xamal na itam ne Sénégal dina am jafe lool daal di jël afrobasket boobule sans Pierre Henry mi nga xam ne ni meneur la naam am na ay joueurs yoo xam ne nii mën nañ koo remplacer Boniface Ndong xamal ne itam ne Tàkko Fall benn papier bi muy xaar ci états moo ko teree ñëw Gorgui Sy mi nga xam ne nii ñëwoon na waaye dafa mujj dellu xamal nañu ne contrat bi muy signé ak clubam bu yees boobee looloo tax mu daal dellu mais dina daal di ñibbisi du yàgg dara ñu fàttali leen ne Afrobasket boobu la ñu ngi ko jàpp du 24 août au 5 septembre ca ñu jàll ci football waxtaanee Watford mi nga xam ne nii mi ngi def kéemtalaay kattanam pour daal di téye Ismaïla Sarr ci mel ni Manchester United Liverpool Everton Arsenal Tottenham waaye nag Watford fas yéene bul bàyyi benn yoon Ismaïla Sarr nga xam ne nii moom moo nekkoon meilleur joueur ci saison bi ñuy wees muy dem attaquant sénégalais boobu lee nga xam ne nii contrat wam mi ngi wéy ba njot nañ ñaxaas bu takkoo takku moo ko war a jëlee foofule ci Watford mi nga xam ne ni 30 millions d'euros la ko jëndee woon ñu jàll ci volleyball ak wàccaayu championnat d'Afrique 15h 18h la ñuy fas yéene communiqué fédération sénégalaise de volleyball daal di xamal 27 joueurs daal di leen convoqué a championnat d'Afrique de volleyball daam Bob, leen 5 au 15 septembre ca Kigali ñu suñu revue d'actualité ak Big Checker jàppale na démb cérémonie de remise de drapeau équipe nationale bu Sénégal bi nga dafa coupe du monde bi cérémonie yëpp équipe nationale bu Sénégal bu beach soccer bi nga xam ne ni moom moo jëloon coupe d'Afrique bi ñoon amal ca Saly yëpp bi leen maître Augustin Senghor def mooy ñu daal def seen kéemtalaay kàttan daal di Sénégal ci onzième édition bu coupe du monde de beach bi ñu amalee ca Moscou mbébét bi mooy équipe nationale bu Sénégal daal dem ci demi-finale yooyee ndaw ngaale si laa ñu leen di xaarandi ci Russie suba ñu fàttali leen ne coupe du monde Le site numéro 1 du sport au Sénégal, Sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android.